لا إله إلا الله ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di am mbégte ànd ak yéen saa su nekk ci xitma bu demee nii tey ñoo ngi ci Daaru Minam ci bisu zikrullah bi mel na ni tàmbali ngeen seen liggéey ndax mën ngaa dikkaat ak yéen mën ngaa dikkaat ak ñun ci teewaay bi liggéey bi ak lépp lu ci aju. salaamaaleykum wa rahmatullah mbokki julli di mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziare bu baax a baax a baax. di leen ndokkeel tamit ci bis bi nga xamante ne nii moom la ñu bokk ñun ñëpp muy bisu zikrullah bi nga xamante ne nii Cheikh Mouhamadul Mountakha da ko jagleel Cheikh Ibra jagleel koy tudd yàlla ñun nag waa ahlu liggéeyal Bamba ñuy rek ñu am benn taxawaay ci liggéeyu Cheikh Mouhamadul Mountakha bi mooy fépp fu mu woote ñu fas yéene ñëw def suñuy tànt waajal ay berne ngir joxal ngir séddaleel ko ko ganam ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo fi ñëw di ko wuyu si ba du lu ñu soxlawoo rek ci lu jëm ci wàllum lu ñu war a xewloo ci wàllu ndékki wàllu añ wala wàllu reer wala ak ak ak naan moo xam muy euh, ndox wala muy boisson wala muy kafe wala muy attaaye lépp rek ñu waajal ko ngir gan ñi man cee bénéficier wu lépp ngir gën a mën a jekku liggéey Cheikh Mouhamadou Mountakha bi loolu moo waral bii yoon ñu ñëw def fi ñetti bâche bâche boo xamante ne nii fi la ñuy waajalee togg yi ak boo xamante ne nii fa la ñuy séddalee ndox mi ak foo xamante ni tamit fa la ñuy séddalee berne yi loolu yëpp ñi ngi ko ñi ngi ci ñi ngi ci dabu ngërëmul Cheikh Mouhamadou Mountakha ndax xam nañ xam nañu bu baax ne ngërëmul Cheikh Mouhamadou Mountakha mooy ngërëmul Serigne Touba rek te lu ñun loolu rek moo ñu ñor. waaw mel tey gis nañu ne yéen a ngi waajal ndëkk yi ndax mën nañoo xayma rek ci gàttal ñaata sandwich ngeen waajal rek ngir jox ko Baye Fall yi nga xam ne jamono yi ñu ci si bi. waaw ci wàllum sandwich yi moom yoo xamante ne ni dañ ko def ñaari pàcc sandwich su yàpp sandwich su ginaar lépp rek ngir maanaam fas yéene koo tàmbalee séddale léegi mu jëm midi une bu ñu demee ba 14 heures jot nag am na mbaxal mu ñuy waajal moo xamante ne nii dañ koy def ci ay barget di ko séddale par pot loolu yi tamit ñu fexe ba ñu nekk ci biir kër sëñ bi ak ak Baay Faal yi nga xamante ne nii ñoom ñooy zikkar di wër ñoom ñëpp aussi ñu mën cee xéewlu ndax xam nañ ne Euh, boo boo boo leen bëggee booleendoo ci benn benn bool wala dara dafay xaw a compliqué tuuti ci ñoom ak ni ñuy doxalee liggéey bi ñu xalaatoon ne kon lii moom mooy gën pratique ñu ne woon nañ ko doxalee noonu waaw. kon liggéey bi mel na ni dafa ànd ak ay bernde ak lépp loo xam ne nii xeetu naan la moo xam lu sedd wala lu tàng. waaw liggéey bi moom noonu la noonu lañ koy defee saa sune ne rek moo xam muy Porokhane moo xam muy bis bu Cheikh Mouhamadou Mountakha woote rek danañ fexe ba lépp lu ajowoo ci wàllum café ataaya meew ndox mu sedd jus muy boisson ak euh, lépp lu ñuy xewloo rek ñu ñu di ko waajal ngir ngir ngir ngir ngir di yi mën cee gis seen bopp waaw kay. yéen kàddu ngay tëjee rek ñu bàyyi leen ci liggéey ngeen continuer liggéey bi ñu ne ñu di wéyal ci yeneen barab. waaw xanaa di santaat Serigne Touba rek di santaat Serigne Touba ak di santaat Serigne Touba ci Cheikh Mouhamadul Mountakha mii nga xamante ne nii moom la booleel wax dëgg yàlla liggéey bi mu yéegal ko niveau bu kawe kawe yaakaar naa la mu waxoon ca njëlbeenam nga ko dem ma dem ko demul ma dem yaakaar naa ci loolu la nekk ñun murid yi tamit ci loolu lañ ko wuyu si ngir bëgg rek mu am ndam ci liggéey bi te dina dina ci am ndam bu soobee yàlla ndax liggéey bi moom du laal suuf incha allahu rabbi fépp fu mu woote murid yi danañ jug xam le ñun amuñu lu dul moom moom rek lañuy ñuy topp lépp lu mu bëgg danañ ko def te ni mu ko bëggee rek noonu la koy amee incha allahu rabbi ndax ñun moom Serigne Touba rek lañ bëgg moom lañ gëm moom lañ yaakaar moom lañ doyloo ba tax na fépp fu mu nekk ña nga fa incha allahu rabbi jërëjëf tawfiq إلا الله لا إله kon soxna si ñu ngi lay nuyu di la ziar fekk la tey ci bisum ndigal ngeen di xitma ndax mën nañu xam euh, mbooloo mi di xitma ñan lan ak lan mooy seen taxawaay tey ci Daaru Minam waaw ñun ñooy waa kër sëñ Saliou Fall bu sëñ Modou Moustapha Fall moom Cheikh Rahima Fall Lamp Babul Mouridina ñu ñëw nag ci bisu ndigal bi nga xamante ne nii moom la sëñ Muntaxa woote jox ko Baay Faal yi mu ñu tàmbali ndigal gi daaw mu daaw ñu def ko muy 24 heures ren ñu def ko 12 heures de temps lenn indiw ñu fi nag mooy njëriñ gi nga xamante ni sëñ Muntaxa mi ngi koy wax ci Baay Faal gi te ñuy dund Baay Faal gi képp moo ñu fi indi ñu jaayante ci bis bi ngir am tawféex waaw. tey lan mooy seen liggéey fii. waaw joxe ay xéewal rek. joxe ay xéwal rek mooy suñu liggéey fii ni ko sëñ bi bëggee rek képp ku fi ñëw daal bëgguñu mu xiif bëgguñu mu mar bëgguñu mu manqué kafe bëgguñu mu manqué dara xitma daal moo ñu fi indi jëf jël googu Cheikh ma Fall di wax lu waay jëf yaay borom looloo ñu fi indi diggante jëf ak jël rek lañ nekk. bisub tey bi màgg lool lépp aju ci ndigal boo doon soññ mbokki taalibe yi ak sa gis-gis ak sa yëg-yëg ci bis bi lan nga nuy tënkal. bu ñu xamoon maanaam bi li muy jëriñ ak fi ko sëñ kon bu wootee kenn du des ndax bis bi boo xoolee du Baye Fall yi rek a fi ñëw ku dul Baye Fall sax ñëw nga fi ndax mbir mee doy waar te yéeme bàkki Cheikhul Khadim bis bi dafa doon bisub yokkute doon bisub tawféex doon bisub ngëneel ci ñun waaw bisub àjjana daal lañ gu ñuy dund la ñun Baye Fall gi waaw bàkki Cheikhul Khadim jaajëf yaaram illallah la ilaha illallah